لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين mbokki téléspectateur ak téléspectatrices yi di site bi di Farokh TV ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar seen mbokk Modou Moctar Diop di leen ziar ànd ak Boubacar Bari tabaarakala ci seen émission Laxdar yi bi nga xam ne daan ngeen ko am chaque jour fii ci Farokh TV waaye mu taxawoon ab diir bu xaw a diire nag. jàmm la woon rek demoon Saalum Tabaski ji woon tabaarakallaahu yàlla dogal ñu dellu si ak si jàmm kon ñu ngi baalu xaq ñëpp di leen baal di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal ñu fekk ko at yu bëree bëri yàlla guddal fan yi lool may wér gi yaram yokk wërsëg yi yokk xéwal yi barke Seydina Muhammad sëñ Aliou Deme tabaarakallaahu mi nga xam ne mooy njaatige Boubacar Bari di patron moom it duñ ko fàtte ci neyoo bi dañ ko fàtte ci di ko baalu kuli hal, di ko laaj ndax mi ngi ci jàmm njaboot gi ñëpp fa tabarakallah kon ci gàttal rek ñu dellu siaar ci émission Laxdariyu bi keroog maa ngi doon taxawoon ak yow fi ma la doon waxee ne shariatu dalay tere nga naafile ci barab yooyu waxoon naa ne la suuru dañ lay tere bu julee jumaa ba pare ngay naafile ci biir jumaa ja soo bëggee naafila génnal ba ñibbi sa kër tabaarakallaa nga soog a naafile kon bunt bi ñu jëloon keroog foofu ngi bëgg a dugg ak yow julli pour lii tax sa julli baax waaw lii tax baax tey boo laabee sobe takkul la nga jàpp njàpp la baax dafa am sart yoo xam ne mooy tax sa julli gi baax mooy tax julli gi tey bunt boobu lañ nar tàmbali ñu commencé sëriñ bi nee na fas lu luy tàqali wax la fii suruuti salaati ci sartaa julli mu ne wa suruuti salaati sartaa julli tahaaratul hadasi mooy laab si tojle wa tahaaratul xabatin ak laab ci sobe minal badni sa yaram wa wa taw bi ak yëre ba wal makaani ak place bi jullee wa satrul awra ak suturaal awra wa istiqbaalul qibla ak jublu qibla wa tarkul kalaami ak bàyyi wax wa tarkul ak bàyyi jëf alkasiratun ju bari kon yii mooy sart yi nga xam ne mooy tax sa julli gi baax barak ban sëriñ bi nee na bi si njëkk mooy na nga laab ci tol mooy nga ànd ak njàpp bu ñaareel ba mooy na nga laajtu sobe mooy bu la sobe taq sobe boobu nag la wax ne na set si sa yaram bu ci sobe taq yére yi ngay sol bu ci sobe taq place bi ngay jullee buy sobe taq yépp a war a laab bokk na ca sutura sa awra danaa la jàng léegi bu dee góor la wala mu nekk jigéen booy julli te suturaal sa awra sa julli gi baaxul bokk na sa sartaay julli yi jox tax julli gi wér mooy nga jublu xibla mooy li ñu tuddee penku nga dak kaaba ga lolo noonu ci saat bi nga xamne da lay wëral julli kon fo julli fo jup julli fa ta do qibla bi ta ya ko tay xamal ne sa julli nga wëru da nga naka nonu nga bàyyi wax ci bir julli wax ju bokku si julli gi nga bàyyi ko naka noonu nga Jeff jëf jëf ju bokku si julli gi nga bàyyi lo ci ci sartaay julli ndax julli allahu akbar akbar si julli gi la bok ko wax la way si julli gi la bok kon bobu taxul may wax jëfit julli jëf la bam jeex sëgg ci yoy yëpp jëf la way yoy taxul ñi wax kon wax ju bokkul ci julli gi wala jëf ju bokkul ci julli gi bu dé dafa tuti yaq ko julli waaye bu dé dafa bëri nak mom julli gi da yaq comme ngay julli de xéssam bu dé nga def ni ben yoon kessé dañ ci yaq ko julli waaye bu dé da nga xéssam hokkatu fi ki la jégué nga door ko épaule lu ne nga dugg ci mom sa julli gi yaq ko ndax loolu bari kon xéssé ni bu maté ñett yoon ba ñeent loolu bari na julli gi dafa yàqu julli gi day yàqu kon jëf ju bokkul ci julli gi su dee bëriwul yàqul julli waaye su dee dafa bëri su boobaa julli gi dafa yàqu kon yii ma limal la nii mooy sart yi nga xam ne mooy tax julli gi wér léegi nag jàng naa ne suturaal xawra ci julli dana tax julli gi baax léegi waxal gu ma la lan mooy xawra su ma ko bàyyi noonu jàll danga jaaxle naan moo lan moo nekk xawra sëriñ bi nag nee na ma waxal la lan moo nekk xawra moo tax bi ne wa awratu rajuli mu commencé ne awraayu góor maa mooy la nga xam ne bayna surati nekk na diggante jimbax ba ilal rukbati ba si bëti óom ya mooy ba ñaari óom ya wala man atu jigéen moom kullaha lépp awratun awra la maa dal wajaxa lu dul xar-xaram bi wal kafay ni ak ñaari tànk kon bu dee góor la li nga xam ne dañ caa wax ne ko booy julli bu mu yow bu feeñee si yow sa julli gi baaxul mooy li ko dalee si jimbax bi ba si óom yi kese waaw li ko dalee sa jimbax daal ba si óom muy sa selu yow góor gi booy julli sharia la loolu bu ci dara feeñ bu ci dara feeñu rek sa julli gi baax na kon boo solee ab saletment di ko jullee sa julli gi baax na boo solee tubéy yoo xam ne daa ñëw ba sa xeel nii nga di ko jullee sa julli gi baax na góor la laa wax kon xawraayu góor mooy li ko dalee jimbax ba ci óom légui nak boudé jigen la mom suy julli leppam la wara mur muur xar xaram bi ni karam bi ni ak ñaar tànk yi nii kon jigen ju buy julli li rek mo wara fën ci mom ak li ni su dul loolu rek su bo wana xamna julle ngi nga sharia waaw chariat nag mooy jàngale xëy na xam ne jigéen gu lay si foofu dana ne ah man ne ay xata yi nii bu may julli moom loolu duma ko def kon nga jàpp ne xam su julli gi baaxul loolu nag yomb na boo jëndoon benn jàllaabe tey jàllaabe boo xam ne am na mbaxana loxo yi gudd na heure boo waree julli rek sol ko rek benn yoon mu wàcc nga jullee ko boo paree sumiwaat di defaat leneen maanaam boo julliwul moom du obligatoire ñu ne la sa yaram bi nii nii bu mu feeñ déedéet loolu moom du obligatoire waaye boo taxawee ci julli nag moom la la chariat wax ne la sax pour sa julli gi baax sa lii moo war a feeñ ak sa cërmaay loolu nag ma ne la boo jëlee benn robb yi ñuy jaay wala benn xaftaan yu guddi yooyu sooy julli rek nga sol ko am na mbaxana nga sol mbaxana bi jël kaala gi teg julli gi dafa yomb ba pare nga summi ko tegaat fee booy julli solaat loolu lu yomb la di yàlla nee na lu ma leen digal rek xam naa ne man ngeen kon nag bul wax ne loolu kenn mënu ko yàlla mu ne lu ñu sant man nañ kon góor xawraa mooy di ko dalee jimbax ba si oom yi jigéen moom lépp am awra la buy julli da ngaa war a muur sëf cëlmaay li nii ak ñaari tànk yi xam nga loolu leer waaw léegi nag mu ne la xam nga ma laa wax ne góor tey boo soloon tubéy bu gudd benn tubéy man ngaa wax tubéy bi ba sa jimbax bi nii nga takk ko takk ko fii tubéy bi julli xaale sa julli yu baax te fekk solo yëre waaw loolu mën naa nekk ci góor su ko defee baax na sol nga bu nga war a julli solo yëre de nga aj bi ba mu romb sa jimbax bi nii solo benn yëre nga sa julli gi baax waaye nag loolu la laa wax ne nag dañ kaa waaw julli gi baax na gaa waaye nag gënut masala mi topp si moom la lay wax ne dégg nga moo tax sëriñ bi nee na wattu kuréew danañ sib asalaatu julli fi saraawi li ci tubay maanaam nga sol benn tubay jullee ko dañ kaa sib ila isa kaana lu dafa nekk fawqa si kaw fi shay'un dara buy ab selenment nga lu mu tuuti tuuti sax nga sol ko bëgg nañ waaye solo selenment solo dara war yére bi rek jullee ko loola noonu dañ kaa sib sëriñ bi nag nee na kon xam naa dañuy yem foofu bu subaa bu ñëwee ñu continuer ndax euh, bunt bi day xaw gudd buñ ci euh, continuer kon daal ba baax la film yi ci gàttal ñu yem foofu ba suba tey bunt bi lim lay jàngal mooy sartaay julli yi nga xam ne mooy tax sa julli baax buñ ne ko laajee neen mooy laab ci tojle laab ci sobe suturaal sa awra jublu xibla bàyyi wax ju bokk ci julli gi bàyyi jëf ju ci julli gi juróom benn yooyu daal mooy yi nga xam ne mooy sarta julli soo ko matalee julli sa julli baax ñu ne la suturaaru góor lan mooy awraam nga ne mooy li ko dalee ci jimbaax bi ba ci óo jigéen lan mooy awraam nga ne lépp am la sëf cër mbaay li ak tenq lii lañ jàng wax ji lu muy bëri bëri lii daa bëggoon a wax kon ma bamtu la firim ñu yem foofu ba suba sëriñ bi nee naa fastum luy tàqali wax la fii sururi salaat si sarta julli mu ne wa surur salaat sarta julli taartu la wa taartu xaba si ak minal badani sa yaram ba wa taw bi ak yére ba wal makaani ak barab ba yëpp dafa war a laab wa satrul awrati ak suturaal awra wa istiqbaalu jublu qibla wa tarkul kalaami ak bàyyi wax wa tarkul afaani ak bàyyi jëf alkathirat ñuy aji bëri yëpp booy julli yëpp dafa war nga sàmmante mu ne waa awratu rajuli awraay góor maa mooy la xam ne bay na surati nekk diggante jimbax ba ila rubbati ba si bëti óom ya li ko dalee jimbax ba si óom yi loola mooy awra góor waaye wal mar atu jigéen moom kulluha léppam awratun awra la maa dal wajha lur xar bi wal kafay ni ak ñaari tànk yi rek moo nekkul awra dégg nga mu ne naa woo tukkurowu asalaatu julli fi salaawi li ci tubay ilaa isa kaana lut dafa nekk foog asa kawam shay'un dara kon tey buñ la laajee ne la ndax góor góor laa wax nag mën na julli sans mu sol yére maanaam wax tuba yëpp ba mu toll si jibaa mu julli ko ndax julli gi baax na nen waaw julli gi baax na waaye loolu na ngeen dañ kaa waaw kon foofu la dars bi ba suba incha allah